comme euh, dañuy collaborer ñun Ciné Banlieue ak Obélisque et yàlla def na ni benn la réalisateur bi di Amath njaay gis ni ci kasimu boppam ni war naa mën am benn rôle bu ma joué ci euh, film d'animation bi. waaye j'avoue que c'est la première fois et peut du man rek parce que defe naa ni c'est la première fois ñu fiy tourner film d'animation 3 de film animation trois d purement sénégalais ñuy làkk wolof c'est la première fois au Sénégal te man maanaam mbégte bu rëy laa ci am ma bokk ci ñi nga xamante ne contribué nañ ci. yaakaar woon naa du ko mën a def aussi. parce que mësuma woon jouer ci film d'animation 3D c'était la première fois. xawoon na métti nag parce que toogoon naa di ko répété di répété waat di répété des fois nga wax sax juum ci mooy mais dara lépp liggéey la woon rek. <laughs> ñëpp xamee nañ ma ci prise de vue réelle man en tant que acteur dama ñëw taxaw plateau di jouer di filmer waaw mais bonjour ma xalaat ni benn sama cër lañ soxla pour pour jox ko keneen. bon man je me dis loolu yokkute la rek. bi ma ko réalisateur bi di proposé xaw ma jeexal ah ndax aw ma ci woon benn expérience ci montage animation film d' animation ñun plus prise de vue réelle lañ lañ gënoon nekk ci ay montage. découpage yeeg yëpp début bi jusqu'à la fin ñu ngi doon liggéey ensemble après suñ bi ñu paree ci loolu si la jublu ci euh, modélisation bi objet yenn objet yi ngeen di gis ci film bi. dañoo def benn constat. dañoo gis ne léegi euh, jeunes yi de plus en plus dañoo banaliser li ñuy wax yàmba voilà donc euh, dañ koy tux nu mu leen neexee te ñun ku ñu xam-xam ne cinéma bu engagé la ñuy def donc côté sensibilisation bi aussi moo ñu gën a poussé ñu jël thème boo xam ne dafay nekk thème bu yeete boo xam ne aussi dafay laal drogue film d'animation du loo xam ne aussi euh, da ngay tëb tëb rek def ko ndax dafay laaj jàng bu bu yàgg te dafay laaj aussi côté production temps bu bëri ak euh, xaalis bu bëri ak surtout équipe bu baax. gàncax <laughs> ah, su boo ko doon xayma mooy gàncax bu baax bi bete bete mooy gàncax bu baax bi pur sang bi. gànja <laughs> oh, oh, oh, gànja. film boo seetaan bu amee bandi rek da ngay dégg ñu naan chef de gang. léegi noonu loo noonu la demee nag yamba om moom mooy yamba bi nga xam ni moom moo gën a dëgër ci gaa yi mooy moom mooy imposer mooy diriger lu ma ko mën a waxee. lu mun naa ne bon Ndiogou benn planeur la nii rek benn planeur bu sikk moom laay fam lu leen lu nekk ci yi nekk ci ay imagination am quoi. c'est un gars qui vit dans son propre monde mu ngi ci coin am sonalul kenn waaw boo xoolee ci film bi sax mu ngi naan gàll bi kenn mënu kenn fi xàpp yi. moom bu sañoon nekk fenn foo xam ne kenn ko déranger muy dund dundam nekk ci ay vibes am même n'importe quel nit ku mu munti doon bu ko déranger rek automatiquement day am frustration cause pour laquelle bàyyiwul xel sax ci yaayam ba koy fëgg bi ne ko yaa ngi déranger koñ bi. Yamba Peur euh, doon na Yamba boo xam ne moo gënoon tàppet moo gën a tàppet sax laa wax ci Yamba yi ndax bu ñu wootee mboole doon na Yamba boo xam ne moo ci gënoon affolé wu mais Yamba bu am ful la sagam sa maam la taal taal saa baay fii kenn du fi des. alors man femme bi may incarné sax daanaka mooy refléter femme africaine boo xam ne dafa pànk fa mën naa ne aussi tamit femme révolutionnaire la ko xamante ne nekkul ci jamono yu njëkk ya mais jamono léegi. eh waay ndeysaan kii moo neex. sage moom toujours. eh mi ngi euh, jéem a wane yoon bu baax mi ngi jéem comme on le dit euh, voie de la sagesse moom lay wane parce que gis naa ni effectivement euh, jamono ji ñu toll war na am quand voie de sagesse quand bu jóg nest pas wax ci mbir mi nga xam ni eh, xëy na mi ngi waaj ëpp dayoo daal c'est un honneur en réalité qui m'a été fait pour ma mën a bokk ci ñiy délivrer ce message ce message qui est sage. déglu leen déglu leen. waaw mën nañ wax ne c'est une maman protectrice foo xam ne tout le temps day veiller ci ay doomam di xool ci lan lay yëngu xam na parce que xale bu toogee tëju ci néeg rek di caabi wi tout le temps di caabi boppam mm, doo xam lu muy def ci biir doo xam lu mu fa nekkee xam nga il faut nga koy surveiller mën nag. comme yaayu njoogu laa man maa fa nekk tout le temps su tëjoo si néeg bi di déglu ay musique yi bizarre mu koy fëgg xam nga di ko laaj lan lay def si biir. bu ñuy wax euh, métier britage dafa doon liggéey boo xam ne des fois par rapport ak image bi ngay am di nga teg benn objet objet boobu mu ngay gis ci image bi nga yaakaar ne boo ko des boo tegee même accessoire boobu di nga am même bruit bi te souvent du combiner parce que loolu daloon na ma. demoon nañu jël son brut bu ñu dem fëgg porte mais bu ñu ñëwee teg ko ci mixage bi bruit boobu doxul woon dañoo mujjee génn bu ma toogee noonu gis benn pôle mais bu ma xoolee pôle bi ñëw ba ci pôle bi après ma na ni peut-être que ni bii peut-être bu ma utiliser bruit bi peut-être mun na ma jox dara ñu ñëw fëgg mais mu jox ñu bruit boo xam ne porte dëggantaay jaay moom ngay dégg. bon film d'animation bii dama si jëlee expérience bu bees bon parce que man daan naa joué ci ay film mais ku ma xam-xam ne man euh, dama bëgg a free maanaam di gesticuler di def ay xama maanaam libre quoi mais bi paa dañ ma ñëw ñu kale ma ci benn ruq rek ne ma saa yëngatu yi sax doo koy def lu bari donc nii nga nii ñu. casé ma ci benn ruq rek ñu ne ma fii ngay fii ñu tënk ma ci benn ruq rek ñu ne ma fii ngay yem bon jëlee naa ci expérience bu beex mais tamit li ma neex la li ma neex la parce que daf ma jàngal lu bari. moment bi ma gën a marqué moom moment bi may imaginer waaye mais man li may nekk fii di kërti kërti yëpp di rey sam bopp yëpp sama voix rek lañ soxla quoi. yow ce que je peux appeler le cinéma réel moom yaa ngi gis nit ñeeg yaa ngi gis euh, xam fa nga war a dem waaye lii daanaka yow kenn la tu es en face du mur mën a taxaw rek di wax rek alors là c'est vraiment une euh, première expérience mais expérience bu bu doy waar la également mooy def di jàkkaarloo mbir bi rek di wax rek xaw ma ko may waxal ma ko may waxal alors là vraiment doyoon na waat trop. <laughs> mixage bi moo gënoon compliqué nag mixage moom yàgg nañ ci trop waaw ndax foog foog bruiteur bi defar ay bruitage am nga jël teg musique yi ñëw teg sa dara bu doxul ñu dindi ñu kiiwaat jëlaat son yi nettoyé ko seggaat affaire yëpp quoi waaw mixage bi moom moo moo nekkoon liggéey bu gën a métti si si liggéey bi. film bi booy xool dañ koo def yëfu route sans <laughs> parce que xam naa ni jëlul temps bi ci waroon pour defar un film d'animation mais li ma sóoraale dès le départ mooy que ni plus ñuy yàgg ci projet bi plus ça nous coûte dama teel a sóoraale ne il faut que ñu am un temps minimum pour fexe defar suñu film moo tax booy xool on a fait quelque chose comme six mois pour la production. bien que euh, côté écriture defoon nañ ko bu yàgg parce que ce scénario là booy xool bindoon naa ko depuis ay 2012 ou 2013 quelque chose comme ça film d'animation bi modélisation bi ni mu demee ay objet lañuy ñuy modéliser ay objet mbaa ay euh, wala ay personnage 3D euh, si ordinateur lañ koy modéliser dañoo am ay logiciels yoo xamante ni loolu la ñuy jëriñ loolooy seeni njëriñ modéliser ay objet 3D te objet boo gis nii mën nañ ko modéliser ay banc ay piano euh, loo gis daal ci vie bi mën nañ ko modéliser. bu acteurs yi ñooy dugal seen voix ba pare yow après da ngay jël voix acteur yëpp par rapport ak scénario bi nga xool déroulement bi nga xool noo koy tegee teg teg ak teg voix yëpp ba pare. après bu réalisateur bi defaree animation nga jël animation bi teg ko ci quoi xool après ñu ajusté looy ajusté ak affaire yi waaw mën naa ne moment bi ma gën a marqué ci prise de voix yi mooy partie bi may bi may waxee kii dafa tux xanaa mën naa ne partie boobu moo xawoon gën a gën a gën a difficile daal mën naa mën naa ko tuddee difficile parce que foofu jot nañ ci jël plusieurs prises ndax ni ñu ni ñu bëggee woon mu dikkee noonu dafa xawoon des mais finalement on est parvenu à le faire. Euh, moment yi ma gën a marqué nag ci film bi bokk na si bi may jël voix may def en enregistrement. parce que damay enregistré ba pare su ma toogee suñ ma tegalee sama voix yi ça me fait damay reetaan parce que dama naa man ni laay waxee. personnage moom xëyoo rek incarné ko surtout maa ngay incarné ku tapet ku ragal te nit bu tapet moom ku incarné ko boo doonu doonulee ragal moom yaakaar naa ne ku incarné ko day xaw a métti mais nag xam ne man moom des fois damay xaw a ma xool naka laay def ku affolé wu bi ma ñëwee rek damaa teg sama xel ne waaw waaw léegi lu ko tiit nu mu war a réagir rek automatiquement rek ma ne xaaral waaw kuy tiit moom làmmiñam bi day rëy daa ko fi wax waaw moom tab rek mu ibbi gémmiñ bi <laughs> noonu laa ko defee ba incarné ko ko quoi. su ma daan modéliser euh, amaat réalisateur bi daf ma doon wax euh, bii baaxul lii nga jàng. après da ngay xool da nga naan ah lii jaru ko comme si comme su fekkee dañ da ngay def lii ñu ne la non lii baaxul te ngaa bàyyi mais après da ngay xam ne ni que da lay jàngal rek pour euh, nga gën a améliorer wu prochainement boo defee erreur bi doo ko defaat affaire yooyu noonu nga suivre les règles de la modélisation nga bañ a def nii nii rek nga ni waa nuru nag ban rek waa comme jël naa ban bi. acteur bi ñu doon enregistré voix yi daaw ma ko fekkee quoi. mais après saa yu ma ñibbisee pour teg voix yi des fois damay déglu benn acteur wax benn wax bu reetaan lu ma reer affaire yooyu noonu moment yu neex quoi yooyu moment yu neex moment yu neex. bi ma ko seetaanee dama ne waaw kii man la wala du man et puis d'habitude film d'animation dessin animé yi ko fait la dama ko daan seetaan certes mais bii nii genre bii nii bon maa ngi koy soog a gis daal ndax bi ma gisee sama rôle du ma ne. baax na baax na à 100 pour cent débutante là certes mais j'ai aimé muy sama rôle muy euh, rôle lu ñeneen ñi tamit c'est quelque chose qui m'a vraiment plu qui m'a vraiment vraiment marqué di ngeen gis noonu sama doom ju ndaw ji moom laa tuddee génération 2.0 nga xamante ne question rek la ñu mën dañuy laaj pour xam. Euh, mu ngi may posé question yoo xam ne man mii sax di yaayam sax aw ma réponse par rapport ak euh, question yooyu innocence sam boobu voilà quoi pour ma part lu lu am sens loolu si tamit ñu refléter ñu wane xale yi xam ne ils sont tellement innocents nga xam ne xamuñu lu bëri daal. côté actorat dañ koy yàgg liggéey parce que déjà amoon nañ fi ay atelier de formation d'actorat yoo xam ne suñu acteur bi di Fernand Diallo moo ko doon animé. donc loolu yëpp ci regrouper ay jeunes yoo xam ne métier d'acteur daf leen intéressé donc loolu daf ñuy permettre à chaque fois bu ñu amee un projet euh, directement dañuy xam suñu ay choix fu ñu ko mën a jëlee. au Sénégal il y a du talent il y de talent boo xam ne war nañ ko mën a gëstu parce que imagine nga nekk ci ordinateur créer ay affaires loolu xel bu sell moo la koy may ak jàng bu wér. moo la ko war a mën a may une pour la première fois au Sénégal ñu gis ku toog ci ruqam di imaginer xelam parce que cinéma loolu la sa sa sa xel rek ngay image sa xel rek ngay use ngay utiliser pour mën a créer ay affaire waa nga jël ay nit déformer leen franchement lu ñuy wax rek si imaginaire quoi pour une première fois au Sénégal ñu gis ko ça c'est quelque chose à saluer et c'est quelque chose à respecter et c'est quelque chose qu'on doit découvrir. mu gën nekkul tubaab yi rek ñoo mën a def ay animation trois d ñun mën nañ ko il suffit rek ñu gëm ko buñ ko gëmee nit boo loo gëm rek yàlla la siy dimbali. cinéma aussi dafa am ay réglam dafa am ay réalités même bu dul woon dara mënu ma nettali loo xam ne ci contexte Sénégal la xewee biir Sénégal ma leen di làkkuloo leneen lu dul wolof man loolu mënu ko sax imaginer. làkk mosul nekk limitu film film da nga koy defar ba mu baax saa intéresse ku mu intéressé nag déggoo làkk boobu soit nga dem jàngi làkk bi walla nga fexe am doublage. waruñu mën a def suñu ay film que ça soit film d'animation walla film de prise de vue di utiliser làkku keneen. man personnellement je suis contre sa côté histoire nag c'est une histoire vraiment très simple très facile à comprendre mais peut-être que technique de réalisation man ku ma xam xam ne j'aime bien tester j'aime bien chercher voilà donc sama sama sama ay film dafay xaw a jege le style expérimentale tuuti moo tax euh, Gandia peut-être dina xaw a wane loolu tuuti bon je le fais pas exprès parfois peut-être sama style la Euh, mais je pense que ku ci concentré wu tuuti côté compréhension du la poser problème. lii euh, Amath Ndiaye euh, génn lii wane xarañteem wane également ni moom il se contente pas ci lii ñu taxaw yàgg na koy wax ndax philosophie mooy cinéma wu ëllëg mooy maanaam am na nu mu war a demee ëllëg donc mu anticiper ci loolu. ndax damay wax toujours ëllëg euh, tey la maanaam door na donc mën naa ni ëllëg mi ngi door ak film bi ganja euh, yamba bi mi ngi def ay ravage ndax ñu ngi koy gis sax ci euh, alentour école yi xale yaa ngi ci ñu bari ñu ngeen dof ci diggante bi bien yamba bi la bu ñu kenn ndax malheureusement am nañu ay propagande qui nous vient de l'extérieur ñii naan ñu ngi euh, légaliser ñii naan ñu ngeen nangam waaye ñun duñu ñooñu ñooñu duñu ñun ñun fii ñu toll nii duñu war a protéger n'est-ce suñu xale yi xale yi ñoo ëpp pétrole xale yi ñoo ëpp gaz yi ñoo wax ji ndax ñoom la ah suñu doonee ñu baaxul maara day si dara du baax gaz ba maara day tali du baax pétrole ba du baax donc dafa am solo euh, film 3D bi di Ganja message bi ci nekk dafa am solo am na solo trop ensuite yeneen li am solo mooy dafa doon vraiment un premier pas vers ce que sera le cinéma de demain. yow bu baax bi nga.